sëriñ Touba xaadalahu laahu maxtaara lahu bi mu sañcee dëkk bu sell bi di Touba xaar la fi njëkk a bay fii armeel yi nekk xaal jooje ba mu ñoree da koo xaaj ñaari xaaj jox góor ña seen wàll ne leen fas leen ci yéene mucc ci gunge yéefar yu góor yi jëm sawara jox jigéen ña seen wàll ne leen fas leen ci yéene mucc ci gunge yéefar yu jigéen yi jëm sawara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 ñu taxañ asamaan ak suuf sëriñ tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu mas rëdd aw rëdd wax ne képp ku ko jéggi tàbbi sawara maam cheikh ibrahima fall baabul muridiin ñëw jéggi ko sëriñ bi laaj ko mu ne ko man yow rekk laa bëgg bëgguma àjjana am na ku mas a ñëw ci sëriñ tuubaa xaadalahu laahu maxtaara lahu jox ko ndox bëgg mu ñaanal soxnaam su tawat sëriñ bi ñaanal ko mu dem dikkaat ne ko faatu na kër ga sax daa mel ni luy bëgg a gént ngir faatu gu bari sëriñ bi ne ko kër googee ak kër gii ak kër yépp ay gént kon yen ñi ñuy topp ci site internet bi di 24actu fii la ñu yem ak yéen di leen jox dig daje ci waxi sëriñ Touba yi di leen wax ne bu leen fàttani di abonné ci suñu site internet bi di 24actu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu